di a docteur Sidi Yaxya Njaay xam ni kii doon wax bu la waxee ne université Madina la génne dee ni aha kay mën naa nekk ndax yàlla da koo boole ci ñi jàng ba pare soog di wax waaye wax li muy àndal yàlla may ko ko mooy tey moom loolu la ko yàlla defal yaakaar naa kuy topp ay waxtaanam yenn saa yi nga defee dafa noppi wala boo ko soree courant bi dafa coupé wala bu dee kaset nga yor di ko déglu da ngay jàpp ni kon xanaa dafa dama am fu ma laal ba mu pause ndekete moom moo ni tekk da koy faral di jëfandikoo day wax ko ci yàgg mu ni tekk 30 secondes soo ko continuer wax euh, ñi ngi lay ñaan ñi ngi ñaan suñu borom docteur yàlla na yàlla fayal ñu la ngeen gi fay ak délégation bi nga àndal kilomètres yi nga jóge te mooy nga jugee ngexoox ñëw traversé ay kilomètres ñëw ba Thiénaba muy ñetteelu édition boo xam yaa ñu ko defal yàlla mi nga xam ni moom kese moo mën a fay yàlla na yàlla fay la ngeen gi fay fay la ba yëg ni moom fay na la mbokk mu mel ni dañoo ne ci weer wi gën ñun doon waxtaanal ci ki gën ci nit ñi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki bokk ci ñi gën doon ko def ndax nag yonent bi moo ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale daara ju mag la yor ah. daara ju mag la yor mi ngi xutba ay juma mi ngi conférence ci réew mi yaakaar naa weeru koor rek bu dugg see man pour ma am ko ci nii mooy damay teel a jóg parce que agendaam day teel fees bu jógee fii fee la jëm bu jógee fii fee la jëm loolu moom pare na waaye mbokk yi lim ñu doon wax nii bu ñibbee nañ ko nafar nañ ko déglu te nañ ko téye daa mel ni yenn saa yi nga dégg nit ni diw dey ci lay bëgge ci lay bañe yenn saa yi nit wax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni yàlla daf ñu wax ni ci moom laay bëgge ci laay bañe sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum zunubakum boobu déclaration ko yàlla def loo mu ni wàtt ci alquran dañu ko déclareel gaa ñi ne leen bu fekkee bëgg nañu yàlla nan la topp yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la toppee bu la toppee xamal moo ci njëkk am mooy yàlla dafa leen di bëgg baal seeni bàkkaar mbokk yi docteur bi ñu doon wax léegi dafa mel ni danga naan nit daf ma neex ndax dafa dëggu nit daf ma neex ndax dafa wàcce boppam nit daf ma neex ndax dafa tabe nit daf ma neex ndax dafa mën a jokk mbokk nit daf ma neex ndax dafa mën a dem jàkka yàlla ni ko wa innaka la ala xuluqin azim jikko bu tax nit di neex nit rek yaa ci raw mbokk yi jëmm jooju di sunu soppe bi borom tëraay bu jekk boobu tëdd aboubacar ñëw tëdd ci ginnaawam bopp aboubacar tolloog mbaggu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tëdd Omar ñëw tëdd ci seen ginnaaw bopp Omar allahu akbar allahu akbar julli ñu nag suñu diggante julli vingt cinq minutes moo ci des cere ba ñu ngi julli quatorze quarante cinq ñu ngi ci dix-neuf kon vingt six minutes moo ci des kon li ñuy def lépp war nañ koo def balaa booba ndax bu jataay bi buñ julli jee du ñëwaat fii kon damay daaneel ci kàddu yi mooy yu jekk yooyu xam ne docteur Sidi Njaay yenn saa mu indi ay xujjaaj ba jàkkaarloo ñoom assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu ashhadu annaka qad ballagta risala wa addayta al amaana wa nasaxta al umma fa jazakallahu xayran daal di ñëw ne assalaamu alayka ya xalifata rasulillah ashhadu annaka ah, kunta ni'mal waziri wa ni'ma saahibi li rasulillah dem ca omar ni ko assalaamu aleyka ya amiral muminin ashhadu annaka kunta ni'ma saahibi li rasulillah lan laa bëgg a wax mooy sunu soppee boobu toppandoo ko la docteur Sidi Yaxya Njaay ñëwoon dañu wax ni mooy tax yàlla sopp ñu te mooy tax ëllëg bu fëggee buntu aljanna ban ubbil ko ñun ñëpp ñu àndandoo sàppe dugg ci biir kon dañ koy dexañ foofu ci tënk bi fi yëm ci wàllu conférence bi waaye El pour mu bañ a jël kàddu gi ñaari yoon kon laajtu conférence ba commentaire ba foofa la yem ndax temps bi ndax dafa am ñu tuddee am ñu ñu rendre hommage ñu def seeni délégation ñëw am fi kàddu bu dee pare bi moom jox na ma kàddoom muy El Hadj Ndiouga somme bi mu joxe ku bokk ànd sàkku xam-xam rek boo amee connexion xam nga ko instant bi ci suba teel laa fa dugg wax envol bam nu mu toll moom moo ni ma dama lay ñaan boo demee ca bâche ba som bi bul ko fa tudd mais moom nag xam ma ci transparence moo tax groupe gi ma nekk soxnaam nekk fa suñuy soxna nekk fa ànd sàkku xam-xam nekk fa somme bi mu wax ma ko wax ko soxnaam te bu ko ubbee di a xam ne jox na leen bu ngeen liiree message di ngeen xam ne jox na leen ca enveloppe ba yemul ci ay wax dong nag jaare fi dem waaye enveloppe baa ngi nii e kaay ana benn xale bu fi nekk kaay lii yaakaar naa lii moom ci ko xam xaalis xam mooy lii moom oyoful kenan benn billet ci biir bu dul dix mille nekku ci waaw duma wax som bi nag demal demal demal ñoom bu ñu ko ubbee dinañ xam ñoom dinañ ko xam bu ko defee bu ko defee euh, nee na ma dama ne ko El waa ànd saako xam-xam day dama am ak ñoom taarix ndax bu njëkk maa ngi doon jàngalee daara ja am ci ñoom ñuy ñëw di jàng jàng si am na koo xam ne nii bi ñu soog commencé dafa nekkoon jigéen wérul mais instant bi doom ji xam naa war naa commencé toll ci war a dem daara wala léegi mu jigéen war a dugg daara waaye benn bis ma ñëw fekk samay mbokk ci ab jataay ma gis leen ñu am lu ñuy leblentee man leen waa ni ngeen di doxale nag ñi ma ah ni la def ma leen noon léeg-léeg lii moom du nii te ngeen def nii loolu moo tax daar saba tuxoo daara ja ñëw kër ñoom sëriñ borom baax néew ma nag ñi ma jàkkaarloo nii ñoom ñoo ko doon def waaye aw ay jëmm laa gis yoo xam léegi ñooña bokk nañ ci njàng mi man leen incha allah di ngeen dem bay leblante seen biir te du am intérêt ngeen am fond di ko leblante seen biir te ku leen lebal 10 000 10 000 ngeen koy fay El Hadj Ndiouga ni ma wax leen bu ñu commencé yëngatu ci wàllu liggéey ca ma xam ne am na ci détermination dinaa ci dugal sama loxo ba nga xam ne dugal laaj sama loxo ndax yow Mame Mor damaa bëgg nga xam ne lépp loo dugg boo tourné di ma gis. ca ànd sa xam-xam boo gisee ma ñëw jaxasoo ak ñoom boo ci sama bopp laaj turu yow la yaakaar naa loolu nag xanaa fa la nit mën a yem kon maa ngi ma yemale foofu kàddu gi di ko jaajëfal ndax tey jamono jii lundi. ba samdi ci tey concours international international Sénico ak national bi moom moo yor lii commentaire mbir yi fii may wax ak yéen ña nga fa hôtel Magic Land la nit ñi dëkk euh, concours ba euh, euh, institut lay amee suba nag mooy le 17 ci la finale bi amee waaye nag yaa nañu ko yàlla fayal El Hadj Ndiouga yaakaar naa xool bi moo moo nangu alquran am na rek ku ma ku ma jël ci suuf ni ma sa mag gi day démb jooy na fi jooy yu metti te man xam naa ne xam naa dëgg la ci moom parce que alxuraan ji mu yor micro central day ànd ak moom da koy dund kon teewu fi mais fi la teew kon loolu moo nekk ngantam boo ko defee nag euh, waa ànd sàkku xam-xam am nañ fi kàddu ci ñetti minutes wàllu ñin rendre hommage ñëpp sunu mag sëñ Makura Mbuub moom moo yor seen kàddu délégation yu bari na de doon ñëw de ñun rendre hommage mais dama jékki ma gis sama yaay du Kodou ñing man noonu laa koy woowee de ba keroog ngeen ko yóbbu Makka nag ba keroog ma koy gidee sama yaay Adja Kodou Kodou ñing dama ko gis mu départ nele ma ne waa mbooloo mee ndax ngénte lan jëm wala ceet lan jëm wala fun jëm ndekete ñoom ak yeneen ñun rendre omage ñëpp fexe nañ ba daje fee korosé gis naa ay ñu bari ci ñun rendre hommage korosé jiit le ñëw dugg ci bâche bi kon ñooñu am nañ fi kàddu amin amin waaw moom day yéeg waaw day yéeg day yéeg li mu doon def pare na day yéeg léegi yéeg bi rek moo ci des waaw yaa na ñu ko yàlla fayal waaw kon kon kon kon macha allah. Eh, oh, waaw. waaw kay jeex na acca joxeel. waaw. Euh, chef de quartier yi moom sama yaay Amadou ak ak sama yaay El Hadj Amadou ak sëñ Cheikh Tambidou ñoo yor kàddu gi El Hadj bisimilah. waaw mani El Hadj damaa bëgg nit ñi ma leen déglu leen jàmm la. waaw. ndax sama waa mbooloo muy ànd sax xam-xam dañoo xam àqu conférencier. Hmm. moo tax ma bëgg ñëpp ne tekk yàlla ngeen gudd fan Sidi Yaxya mi li fi wax mënuñu koo fay moom ndax xaalis a ko dul fay <laughs> li nga fi wax xam nga xaalis mënu koo fay waaye xanaa sañ na noo ñaan sañ nañ laa ñaanal nga gudd fan sañ nañ laa ñaanal nga yàgg fi te wér sàkku xam-xam ci turu président ak ñi ko bokkal ñépp nee nañ tey wallahi bu ñu amoon ay millions dañ la ko jox sàkk woo ko de danga leen ko defaree ngir yàlla ak sa kóllëre ak maam Mor waaye nag ku ne xam ne nag koor moom yiw dong lañ ci sàkk lii ñuy def nag muy enveloppe si jël ko ngir teg ko ci sa loxo ewaay nee na ci barke ki nga doon waxtaane ñaan leen yàlla ba bu déwénee ñu mën a takk million jox la ko ah loolu mooy seen bëgg-bëgg mooy seen bëgg-bëgg di am na ñoo xam ni feneen la ñuy battre mor am na ñoo grand théâtre la ñuy taxaw takk yor takk un million di ko baatare ñeneen ñi may bañ a tudd waaye ñi yor lu baax nag ni waxtaan ci sang bi ñooñu jëruñoo baatare alaaji Omar si buñ dajee Touba damay baatare di baatare ba ci amu man du ma baatare fenn ci bii doon waxtaan ci Seydina la ñuy baatare kontaan nañu nee na ñi ngi lay ñaanal lépp loo man ren bu déwénee yàlla na nga mën lu kopp bul jàpp ni fay nañ la de tàndarma rek lañ la jox ci barke sang bi ko doon waxtaane koo ameel mu ñëw dina fay ñépp ñëw sa sekkare si yow àdduna yaa mën a wor bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi sant yàlla bu baax du julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa xanaa dañ ko annoncé ba pare rek mais daanaka pap wax na lépp te ñun duñu ñaar benn lañu bi sama kilifa ñëwee dama ko ne amatuma fi kàddu kàddu gu yaa ko moom mu ne ma déedéet ndigal la sa kilifa nag bu la ne ndigal la bu dee ñaari baat sax nga wax ko xanaa ñuy ziar sëñ góora mu bàyyi si Ahmed Tidiane ndax daf ñoo daf ci jataay bi waaw jataay bii nga xam ne yànj na lool ci kilifteefu baayam la fi amee di ñaanal Baye Cheikh yàlla na ko yàlla xare aljanna ci barke yonent bi di nuyu nag suñu xalifa Baye Assane Seck yàlla na fi yàgg téwér di ñaanal nag Seydina Omar Sy ndax am na lu génne lu bari ci kër gi euh, taaral jataay bi su dul woon moom mën naa bañ a am kon nañ ko ñaanal wàcc ci buntu dëkk bi rek dugg ci biir jumaa ji julli ah loolu kenn mënu koo fay Seydina Omar dal na ko yàlla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu oustaz wax dëgg yàlla li nga fi wax dugg na ci xol yi yàlla nañu am dégg ak topp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ci jataay bi ndax temps bi dafa xat xanaa di gërëm ma Mor Mbengue man ne wax naa ne suñu quartier mooy meilleur quartier ci quartier yi palaa nag bu ma neexee waaye nag di quartier Seexu Tambédou chef de quartier mi ngi nii toog ku jàmbaare ku teey ku yaru nee naa ko nag fan yi nag ñu dimbali ci sàcc yi te sàcc yi dafa bari ci koñ bi fan yi euh, di nuyu waa sàkku xam-xam yëpp di jël seen kàddu di ko yëkkati di leen ko waxal waa sàkku xam-xam wax dëgg yàlla Maam Mor sant nañu la gërëm nañu la ndax nag ñun ñi nga xam ne ñooy suñuy borom kër suñu yëkkatee kàddu sant kon ñoom sant nañu waaye li nga xam ne loolu nga leen yéene mu dugg ci seen xol yi yàlla na ci dugg te ñu dégg ko te jëfe ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam Mor ñun mënuñu laa fay wax dëgg yàlla xalaat bi rafet na dajale jigéen ñi di leen jàngal seen diine di leen xamal xam-xam dajale ñi nga xam ne at mi yëpp ñoo fi wàcc liggéey di leen rendre hommage loolu xalaat bu rafet a rafet la képp kuñ fi rendre hommage yàlla na la yàlla xare aljana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne nag ñëw nga fi ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm temps bi dafa xat li ñu bëggoon a wax ëpp na lii waaye xam nañ ne ci yéene ak bëgg rek Mamor xam ne am nañ fi cër moo tax mu joxe kàddu gi waaye kàddu gi mënoon naa ñàkk ndax Pape Abdoulaye Mbour wax na lépp te ñooy moom moom mooy ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Jibril Jaañ la ilaha ànd ak Abdou Gningue. mu bàyyi tafsir Gningue laay laxal. ànd ak Abdou Gningue mu bàyyi mu jaay Gningue. laay laxal. waaye sëñ Talla. mu bàyyi Jibril Jaay laay laxal. ma ne monsieur le maire. mu bàyyi Jibril Jaay laay laxal. waaye sëñ Talla. mu bàyyi Jibril Jaay laay laxal. ànd ak Abdou Gningue. tafsir mu jaay Gningue laay laxal. ànd ak Abdou Gningue. ak ñen fi fekk yëpp te yaa koy teg ci taabal ji di nuyu sama xarit yi ma fi fekk parce que bu ma leen bëggee lim nag yaa ma may ñaari minute bu ma ko sañan te waxtu wi taxawul la ma waxan président laa laa lay wax ni ñaari minute fajul sama soxla waaye nag waxtu wi nu jàtt nii ba tax nga may may ñaari minute bu yoboo sax ma wàññi ko ba mu nekk benn minute sëñ Mamor ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di nuyu sëriñ Gora sama xarit di nuyu mbooleem yi fekk yëpp di nuyu jigéen ñi nag bu baax ndax defe naa ñoo defan délégation ñëw sama kër yëkkati carte invitation jox ma waaye fekk na booba politicien moom bu campagne xasee jóg rek lu bari da koy fàtte fii nu toll loo def ci sama bopp beeg sama xel lu Amadou Ba gañe na rek mënuma koo dégg te loolooy am nag bu ko yàlla dogalee loolu mooy am jigéen ñi moom kenn ku ne xam na ni samay xarit ngeen sëñ Mamor ñëwuma sa conférence rek pour campagne mais dama fee ñëw pour wax li ma bëgg ndax li ci ëpp li ci ëpp ca conférence yi dama bëgg nag ngeen déglu bu baax sëñ Mamor da cee ëpp li ci li ci ëpp ci conférence yi bu tombewuloo campagne man rek la ñuy gis kon nag am naa droit wax am naa droit wax parce que nag bu ginnaaw bu méttee man la ñuy gis waaye bu ma amee lu ma bëgg wax leen ko dama ne jigéen ñi dama bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak man ñu wateel Amadou Ba parce que mooy jàmmi réew mi dama ne bu dul woon man bu dul ak man donc di sëñ Ibra Seck mu bàyyi taala Amadou Ba rek ci candidat yi moo fi nekk ñaar fukki at yoo xam ni du toog weer te ñëwul ci armée li am maam Amari Ndaak yi tàllal ay loxoom ku ko xamul woon xam ko tey weer wu jot wala ñaari ajjuma yu jot Amadou Ba dina ñëw ci pencum Thiénaba 11h wala minuit ñaan ci xabru ci xabru yi yàlla defal ko jàmm defal jàmm réew mi tey nag yàlla dogal na mooy candidat bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla jox ko ndam yi waaye bu ngeen gisee ñun ñu ànd nii maag Abdou Ngingue ak yeneen coalition yi wen ngeen xam ne xel war naa dal dama ne ku doon ku doon am loo xam ni ku doon ku xalaat ku doon xalaat bu yeboo nga wóor ni fii nu toll nii dëkku ñu wóorul dëkku ñu wóorul jàmmaaroo ñun wóorul asalaamaaleykum wa rahmatullah def ko haddiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ref sunu yéen sunu aay yëpp nañ ko ci dugal na weeru koor lañ ne lu waay ñaan rek yàlla dina ko ñaan la li ngeen bëgg bismillah ku ne ñaan li nga bëgg bismillah amin nangu leen ñaan rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahiim maliki yawmi din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الرحمة المرسلين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك